bul fàtte abonné te nga bës kolos bi ngir vidéo yi ni dugal nga man di si jot aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni ahisuha bika wa surriyataha min asheytaan rajim rabbi aousu bika min amasati sayatin wa aousu bika rabbi an yahdurun rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli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 bokku yi nak dañoo fasiyene dik ak yeen ci ben secret nop bu yomb ben secret nop bu efficace ben secret nop bu gaaw lol ñu tegg ko ben talsam bo xamne talsam la bo xamne lambo na turu yalla lambo na timit ben ay bu am solo lol ci walu boole ay ba ñuy gëna sori rek dañ lay wax yow mi gan ci pasbi, bi bu fekkene abonné go ci sen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te partage vidéo bi mu gëna yaatu ndax vidéo yi ni duggal ci seen bi yëpp ay vidéo njëriñ kessa la da wax yow mi nga xamne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu istikhar dañuy def seet dañuy def istikhar à distance <coughs> mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim rew man nga ñu contacter ci ben ci ñaari numéro yi rek allah rabbi desna na da defal istikhar bu leer nañ allah mbokk yi nga xam ne dañu bëgg a bokk ci mit groupe whatsapp bi mën nañu contacter ci numéro bi waaye nag groupe whatsapp bi am na ay sart yu ñu ciy bokk kon mbokk yi ñu dikk ak ci secret bi ñu leen indil tey bu leen fàtte ne garab yi kàttan yi disponible na muy garabu mos xam yi muy garab yu am am solo ci wàllu néegu sëy kon mbokk yi secret bi ñu leen tey mooy am jil xab la mu lii xudurin boo ko xaddatee mi ngi lay jox quatre cent trois boo jëlee tamit allahu muhammadu jibrilu moom it mi ngi lay jox quatre cent trois boo jëlee fa jamaxnaahum jamxan mi ngi lay jox quatre cent trois talsam bi yooyu lay jàpp am na yeneen ak yeneen yu mën a génne yoo xam ne talsam bi da koy jàpp lépp jëm ci wàllu boole ay nit di talsam boo xam ne bu efficace la boo xamee waxtu wi nga xam ne moom la ñuy defee no waxtu yi boo ko xamee ba def ko ko du taxaw moom bomb la moom boo ko defee teel moom du taxaw secret bu doy doy waar mi ngi nii secret bi boo ko bindee nii ba pare am na ay mbir yu may àndal xëy na dinañ am ngant léegi ngir secret no bi di ko joxe publiquement ngir lu baree bari luñ doon def dañ ko daan def ngir baaxe ko nit ñi ngir nit ñi mën kaa jëriñoo waaye dafa bari nit ñoo xam ne dañuy jël secret yi am neneen nuñ koy defee ngir lor ay nit te loolu taxu ñoo jóg te di def gën a defloo nit ñi attention noop bu leen koy def mukk ci lu dul aajo waxtu bu ngeen koy def na fekk aajo buñ déggee ñu ne aajo nag mooy koo xam ne da nga am soxna ngeen am jafe-jafe lu bari wala nit koo xam ne da ngay bëggante ak moom nga ragal mu génn ci say loxo waaye di ko def ngir fo képp ku koy def benn mën na la tëj ba sa wërsëg pour mu ñëw day jafe nga jàpp na dañ la liggéey fekk ne du loolu mën na la dikkee tamit bopp buy metti boo xam ne day të dakk foo toll sa bopp di metti di tëju xalaat yi di bari ba ca mujj mooy mën na la dikkee tamit ak gàtt fan te yii yëpp benn baaxu moo tax lépp loo xam ne da nga koy def mu jëm ci wàllu lasaraar rawatina ay nooba gii yow mi koy def na nga xam bu baax a baax a baax bul gis ñu publier am noob rek nga ne da nga koy gisee yooyu dansé bi si nekk yow mi koy def mën nga ko bañ xam waaye boo ko defee ba pare ci nga koy gis. moo tax ñu ngi leen koy defloitation bu baax xam naa kon lii mooy secret bi nga xam ne moom lañ amoon yéene partage ko ak yen képp koo xam ne yittewoo nga dëgg-dëgg secret bi nag boo ñu contacter ci whatsapp bi incha allah rabbi dinañ la ko baaxee incha allah waaye a mënuñu kaa joxe publiquement di la wax ne yow mi gan ci pass bi bu fekkee ne abonné nga ñoo ngi lay ñaan nga abonné te seen vidéo bi partage ko mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal ci seen bi yëpp ay vidéo yi njëriñ kese la yow mi bëgg a def loolu si xaar tamit mën nga ñu contacter ci benn ci ñaari numéro yi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah nguuru Sénégal Mbàkke borom di dikk na ngir jàppalante ak yeen ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom sëriñ bi Mbàkke borom bax dina yëngatu ci walu sét sétu ramlu moma ci doy ngir jafé jafé yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu né ndax fofu la yam ñu né mom borom bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xamné du jarati ngay déplacer wu di ñëw jokkol ak mom rek mu défaral lako ci anam gumu gëna yewé né ci lu jëm ci walu ndomba mom sëriñ bi di ci yëngatu mom mbàkke borom baax ndomb yu am solo la leen di jox yu yéeme loola nga xam ne ku ko takk ku ne doo faatu mukk si ndox ah mbokk yi loolu lu am solo la jaaro bayra yi nag ak ubbiiku moo ma ci doy moo mbàkke borom baax dina la ci dimbali ndax loolee rek la mëne lu jëm ci wàllu jaaro bayre nga xam ne ci jonn yàlla tey jile danu ko yittewoo ak ubbeeku ku ne bëgg ngaa ubbeeku ci sa bërëbu liggéeyukaay ak àdduna ba wër sa ganasi la sëy li muy tas bëri ne te kër yi yëngu loola ci lu jëm ci wàllu boole jëkkër ak jabar wàllu nopp sëriñ bi moo ma ci doy Bamba Mbàkke borom baax dina la ci dimbali ci anam gu mu gën a amee solo wàllu tukki nag moo ma ci doy yéen ñu bëgg wàllu këyit te mu jafe yéen ñu nekk biti réew te am këyit jafe leen itam Mbàkke borom baax mii moo ma ci doy gaaw leen gaaw jokkook moom ma adresse sama benn rek la mi ngi ci Touba Mbàkke woo leen ko ci 77 684 28 28 wala ci 77 668 28 28 bu dee ci wàllu Gambia gaaw leen gaaw jokkoo moom ci plus 220 238 16 26 ak Mbàkke borom baax mi seen coono jeex na.